aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillah rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki maa ngi leen di ziyaara bu baax a baax xam naa beneen téléphone bi daa xaw a am problème moo tax micro bi leerul bu baax ma yaakaar ne bii mooy tene ala kulli xaalin déglu naa waxu kilifa gu mag gi di jéggalu bu baax a baax ci ñàkk a tudd turam ixtiraaman lahu ak tabjilan li yi ala kulli xaal duwut ne moom laay waxat duwut ne moom laay waxat waaye wax ji laay waxal euh, kilifa gu ma jox respect la ba fu respect mën a yem sama respect ci moom ak sama nangu bi ma nangu xam-xamam ak sujjóot gi ma sujjóot ci darajaam ak maqaamam euh, weesu na lu lu nit mën a xiyaas wala mu koy xayma donc bu waxee wax ci xam-xam te man nangu ne moo ma raw téeméeri junne yoon moo ñu raw euh, wax dëgg yàlla duwul ku may ñëw di fonto wala di jaar ci waxam ji sax waaye rek dafa am wax yoo xamante ne léegi léeg bu jugee nit ki dina ci mën a am xalaat euh, déglu naa lien bi muy wax ci saxiixul yi ak ñi nga xamante ne ñoo koy jam ak nangam ak nangam euh, comme ni ko ñëpp xamee nag am na lu ñu d'accord ci wax ji am na lu ñu ci du d'accord comme ni qaida bi waxee kullun yuxazu minhu wa yurad kenn ku nekk kumoo kumu ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xamante ne maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa ku dul kooku rek am na lees di jël ci moom am na lees mën a bàyyi ci ay waxam itam kon maa ngi ñaan wax ji euh, nañ ko jëlee ci namat boobu euh, bañ a jàpp ne wax la jëmale ci benn al ustaaz docteur al fadil al aalimu al allaama al mubajjal wala bañ jàpp ne wax ji wax la joo xamante ne euh, ñàkk xorma wala ñàkk respect wala kii moo ko waral di euh, di tuub euh, à l'avance bu fekkee ne dina jamtalu ñu xalaat ci lu mel noonu xaalin ci commencé rek di wax ne comme ni ko ñëpp xamee yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam la yónni ci ñun ci xeet wi ginnaaw bi mu yónnee ay yonentu ci yeneen xeet ya jiitu woon yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallama alxuraan la indil te alxuraan boobu yàlla daf ñu ci wax aaya bu ama am solo anzala min as-samaa'i ma'an fa saalat awdiyatun bi qadariha kinaaya boo xamante ne mën nañ ko jàppee noonu mooy njëriñ la bu wàcc kenn ku nekk da nga ciy jël kem sa ndab ni mu toll naka noonu itam xam-xamu diine ji euh, commencé ko ci xam-xamu xadis ak li ci aju euh, xam naa ni naa trop ci wax ci xam-xamu xadis ak li ci aju ci kanamu borom xam yi ak docteur yeeg yu mel noonu waaye nag euh, dañuy wax ne lawla al isnaadu la qaala man shaa ma shaa fàttali sama isnaad ci xadis man mooy Mawlana Cherif Ibrahim Saleh al Husayni radiyallahu anhu wa xafidahu sukkandiku ci benn wax joo xamante ne benn boroom xam-xam moo ko wax beneen boroom xam-xam toppandoo ko beneen boroom xam-xam toppandoo ko beneen boroom xam-xam ko ba mujj siiw nga nar sukkandiku ci loolu nara a loo un milliard et demi de personnes wala réerloo un milliard et de personne dama jàpp ne euh, njuumte lay faral di doon léeg-léeg euh, waaqi a jullit ñi fi ñu toll tey alquran kese kese kese moom mooy téere bi nga xamante ne moo ñu mën a boole ñun ñëpp moom mooy xablullahi bi nga xamante ne yàlla wax nañu ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu ndax tey jii dëgg la firqa bi ñuy wax ahlu sunna moom moo ëpp ci lislaam en terme de pourcentage waaye duwul ne moom mooy l'islam duwul ne ahlu sunna kese moom mooy l'islam lépp laa bëgg a wax dafa am yeneen nit ñoo xamante ne dañoo bokk ak ñoom diine ji te même bu ñu dee zéro virgule zéro zéro un pour cent dañu am xaq ci diine ji ñoom tamit comme ñun luñ ci amee xàq ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo yónni ci ñoom comme ni ñu ko yónnee ci ñun te ñoom tamit risaala boobu yonent bi indil leen dañoo am xaq am ci seen dégg-dégg comme ñun li ñu amee xaq am ci suñu dégg-dégg te xaq boobu ñu am ci seen dégg-dégg dañoo am xaq ñi respectel leen ko comme ñun lu ñu amee xaq ñi respectel ñu suñu dégg-dégg sàkkantumaa nag ñooñu duuñ zéro virgule zéro zéro un pour waaye weesu nañ vingt pour cent ahlu sunna booy wax ci lislaam tey maximum maximum loo leen mën a jox quatre-vingt pour cent la ci jullit ñi chia yi danañ jël quinze pour cent leneen lu du chia dana jël cinq pour cent pour cent ci un milliard et demi de personnes c'est pas à négliger lii damay wax rek euh, pour bañ a exagérer parce que aw ma chiffre exact yi mais minimum minimum minimum quinze pour cent da nga leen ko mën a jox boo jëlee boroom xam-xam bu mel ni mawlaana al imaamul buxaari qaddasallahu sirahu nga xamante ne mu ngi dund ci troisième siècle après yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi juddu ci cent quatre-vingt-quatorze génn àdduna ci deux cent cinquante-six mu bind benn téere téere boobu rogaat ba agsi ci ñun bi xaddi nazar ci leneen li li li am yëpp ci li ñuy mën a wax ci téere bi ndax moo ko bind ndax bindu ko ndax nangam ndax nangam ndax am na ay borom xam-xam yoo xamante ne seen taxqiqaat ñoom nee nañ fa mu leen yóbbu sax mooy ne saxiixul buxaari bi buxaari bindut ko ala kulli xaal loolu beneen buntu xam-xam la bis bu ko wax ko jotee danañ ci dugg waaye nañ jàpp ne moom moo ko bind téere bi royaat ba agsi ci ñun téere boo xamante ne ñu ngi ko bind ci trois siècles après yonent bi alayhi salaatu wassalaam boobu nga jël ko bëgg koo farataal ci mbooleem jullit ñi comme ni ñuy farataalee alxuraan ci mboolem jullit ñi dama jàpp ne dafay nekk manque insaf maanaam manque honnêteté intellectuelle daf ciy dugg ak bëgg accaparer lépp te yàlla digaluñu loolu nit ki mën nga am sa gëm-gëm yow mais bul te keneen mu am gëm-gëmam wala nga forcer ko ne ko par force tey nga gëm li ma gëm man mën naa gëm ne sama jur moo gën ci góor àdduna mais waruma laa forcer pour nga gëm ne sa waayjur moo sama waayjur moo gën sa waayjur waruma laa forcer loolu te war naa laa mën a may droit nga gëm ne sa waayjur moo gën sama bos kon mën naa gëm ne man saxiixul yi moo gën a wér pour man mais waruma farataal keneen ne ko par poste tey nga gëm loolu wala nga nekk zindiq boo ko gëmul nga nekk xeeséer boo ko gëmul nga nekk mubtadi boo ko gëmul nga nekk nangam non Euh, yaakaar naa daal diine lislaam ñun ñëpp war nañoo dëppoo ci ne mat na lu jiitu Buxaari di judd Buxaari dafa judd fekk fi lislaam xadis yi Buxaari riwaaya ñu ngi fi lu jiitu Buxaari di juddu Buxaari il n'a fait que dafa dajale kon li mu dajale noonu bi xaddi nazar ci chiffres yi ñuy joxe ay six cent mille xadis quatre cent mille xadis euh, ala kulli haal bi xaddi nazar ci yooyu noonu yëpp li mu dajale noonu moom ci ay qawaid yoo xamante ne ma anzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewut ko yonentu bi waxu ko moom moo toog ci troisième siècle teg ay qawaidam ne ci lii lay bind téeréen comme man ni ma mënee toog tay en deux mille vingt le quatre février deux mille teg samay charte ne damay bind téere ci lii laa koy bindee manhaj bii laay jaar manhaj yee bii laay génne nangam ak nangam ak nangam xawaayid yooyu am am ay am ay boroom xam-xam yu gis ne ñoom jubu na leen ñu jàpp ne xawaayid yu wér la am ñu gis ne jubuwu leen ñu jàpp ne wérul mais quand même où la démocratie nañ leen jox droit boobu ñoom tamit mais bëgg wax ne tey ku gëmul ne Buxaari yi li ci nekk wér na da ngaa weddi diw da ngaa weddi diw da ngaa weddi diw boo weddee diw après xéeféer après safar après non non quand même quand même yi nii ñuy wax ni tey ñaata téere xadis ñoo jiitu Buxaari ci kaw suuf te téere yooyu noonu yëpp ñi nangu ne am na lu wér am na lu wérul lu ci nekk te loolu mooy dëgg téere bu dul alquran dañoo war a nangu ne am na lu wér am na lu wérul léegi nag li wér ak li wérul nisbiye la li wérut mën naa ëpp li wér li wér mën naa ëpp li wérut mais bëgg a jël benn téere ne li ci nekk lépp wér nañ ñëpp dëppoo nañ c'est faux c'est archi faux parce que ñëpp dëppoo nañ saaba veut dire amul kenn ku contesté te ñi contesté bëri nañ ndax yow ci sa bopp yow mi wax ne ñëpp dëppoo ne ñëw yaay ku ne ku contesté chiite yi nga ku contesté rafidi nga ku contesté mutazili nga ku contesté ibaadi nga kon ndekete am nañu contesté léegi ñi contesté noonu dañoo am droit ñi déglu leen ñoom tamit Macky Sall mooy président Sénégal duwul ne Sénégalais yëpp ko votel il a la majorité mais duwul ne Sénégalais yëpp ko votel am na Idrissa Seck mu am benn vingt pour cent am na Sonko mu am quinze pour cent am na diw mu am cinq pour cent am na diw mu am pour cent ñooñu dañ leen a war a respecter seen loolu ñoom tamit mais n'empêche mën nañu d'accord ne Macky Sall moom mooy président sur la base de la majorité mais bu ñu wax ne sénégalais yëpp Macky Sall la ñu votel ku wuuteeg Macky Sall xéeféer nga ku wuuteeg Macky Sall nangam come on euh, ma ne am na téere yu bëri bëri yu jiitu Bukhari ci xadis par exemple imaamu Shafi ak ay téereem am na musnad am na yeneen téere imaamu Shafii mu ngi décédé deux cent quatre de l'hégire maanaam diggante bi imaamu Shafii di di di décédé ak bi imaamul Buxaari di génn àdduna cinquante quatre ans moo ci dox kon imaamu Shafii bi muy décédé Buxaari bindagu téere bi imaamu Shafii moomu téeréem yi ñun nangu nañ ne am na lu ci wér am na lu ci wérul am na luñ ciy jël am na luñ ciy bàyyi imam malik ci muwatta imam malik moo jiitu imaamu shafii moo jiitu imaamul buxaari moo njëkk a génn àdduna imaamu shafi imaamu shafii ak imaamul buxaari tey nangu nañ ne muwatta na lu ci wér am na lu ci wérul imam bu ma juumul am na luñ nangu ci musnadam bi ne am na lu ci wér am na lu ci wérul ba xatta Euh, musannaf bu Abdourazaq Abdourazaq mu ngi génn àdduna deux cent onze de l'hégire ba ma juumul Abdourazaq nangu nañ ne musannafam am na lu ci wér am na lu ci wérul moo jiitu imaamul Buxaari musannaf bu Ibn Abi Shayba Abubakar Ibn Abi Shayba mu ngi génn àdduna deux cent trente cinq de l'hégire musannafam nangu nañ ne am na lu ci wér am na lu ci wérul musnad bu Abu Daawud Tayaalisi Abu Daawud Tayaalisi mu ngi génn àdduna deux cent quatre de l'hégire même année que imaamu Shafii mais nangu nañ ne Abu Daawud Tayaalisi musnadam am na lu ci wér am na lu ci wérul moo jiitu sax musnad Ahmad musnad bu Ishaq ibnu Rahawee wala ibnu Rahuya deux cent trente huit de l'hégire moo jiitu imaamul Buxaari bal sëriñu imaamul Buxaari la nangu nañ ne musnadam am na lu ci wér am na lu ci wérul et pourtant jamono ji yëpp fatara bii yëpp fatara muwatta musnad ibnu abi shayba musannaf abdurazaq musannaf ibnu euh, ibnu abi shayba musna euh, nu mu tudd musnad ibnu rahawey musnad tayalisi musnad nangam musnad nangam jamono ji yëpp waxuñ ne lislaam dafa manqué waxuñ ne sunna yonent bi dafa manqué comme alquran mu ngi fi sunna mu ngi fi am na lu wér am na lu wérul l'islam a ngi dox alors pourquoi pourquoi en deux cent cinquante six benn sëriñ ñëw tudd imaamul Buxaari ñi bëgg a wax ne à partir de kii moom lépp lu nekk ci bosam wér na te képp ku ko weddi weddi nga sunna wu yonent bi c'est pas honnête c'est pas honnête c'est pas c'est ce n'est même pas intelligent ce n'est même pas intelligent nañu d'accord ne am na lu ci wér am na lu ci wérul li ci wér mën naa ëpp lu wér fa lillahi alhamdu ñi jël li wér li wérul ñi sànni ci mbalit mi ça n'a rien à voir ak tuutal Buxaari wala weddi Cheikhu Tidiane wala weddi Cheikh Omarul Fouti wala weddi Serigne Touba wala weddi Seydi Hadji Malick wala weddi Baye Niass ça n'a rien à voir ak loolu ça n'a avec weddi benn euh, Abu Bakr al-Bayhaqi wala Ibnu Hajar al-Asqalani ça ak loolu finalement dafa mel ni Buxaari asbaha sanaman yobat dafa mel ni dañ ko def benn benn idole di ko jaamu te pourtant doomi aadama la comme yeneen sëriñ yi ko jiitu yeneen borom xam-xamu xadis yi ko jiitu gënu gëneewu leen dara xanaa lu lu ko yàlla may te mayul leen ko te Buxaari yi moom ci jëmmi boppam ci jamonoom booy xool dundam am na ay borom xam-xam yu jamono wanteeg ñoo xam ne ñëpp nangu nañ ne ay boroom xam-xam lañ waxuma la jam xadis ci yi wala benn xadis mais Buxaari ci boppam la ñu jam ku mel ni ñoom. Euh, az lii ku mel ni ñoom Razi ñoom ñim jamono wante ñoom dañoo jam Buxaari ci boppam wax ne aqidaam baaxut fasidul aqidati la laa tasixu riwayatu anhu Buxaari ci boppam la ñu jam ba génne ko se dëkk ba mu dellu nangam ak nangam ba mujj gi muy ñaan yàlla yàlla na yàlla jël roxom allahuma inni qawma qad daqat alayya al ardu bima rahubat faqbitni alayka qawma la nag ñaanam boobu Euh, ba ci mujj dundam muy woy woyam ba euh, kam saxihin taraahu min gayri suxmin zahabat nafsuhu lkarimatu falta euh, ala kulli haal Buxaari ci boppam li ma bëgg a wax mooy moom ci boppam jam nañ ko waxuma la téeréen bi waxuma la benn xadis wala ñaari xadis wala ñetti xadis moom ci boppam jam nañ ko te ñi ko jam ay borom xam-xam lañ yoo xam ne ñu ngi jël seeni xadis nangu nañ ne jël ay borom xam-xam lañ kenn waxu leen ne dañoo weddi imam Malik kenn waxu leen ne dañoo weddi Cheikhu Tidiane kenn waxu leen dañoo weddi Cheikh Omar kenn pourquoi ñu bëgg a terroriser sénégalais yi que ne boo weddee benn hadis ci Bukhari da ngaa weddi Baye da ngaa weddi Cheikh Omar a terroriser nit ñi que boo weddee benn weddi Serigne Touba Muhammad Yahya az bi weddee bi jam Bukhari ci boppam ne fasidul aqida ndax dañ ko wax ne da ngaa weddi Serigne Touba da ngaa weddi Cheikh Omar Fouti ñoom razi ñi nga xamante ne ñoo jam Buxaari ci boppam ba génnee ko dëkk ba mu nekkoon ndax dañ leen am ala xaalin li ma bëgg a wax mooy man d'accord ma ci jam gi ñu ko jam ñoom parce que Buxaari man bi ma tatabuwee mbir yi jàpp naa ne Buxaari moo am dëgg kaana mazluman dañ koo tooñ waaye nag ay borom xam-xam lañ yu wax seen wax ci Buxaari te borom xam-xam yi di ko riwaaya kon ñooñu jamuñ benn xadis kese ci Buxaari waaye Buxaari ci jëmmi boppam la ñu bombardé ku bombardé Buxaari ci jëmmi boppam nag doo fa bàyyi téeréem doo fa bàyyi benn xadis wala ñaari xadis yëpp ngay bombardé waale. Euh, loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ku ku ku ku ku toj néeg doo fa bàyyi fenêtre euh, donc jàpp naa ne daal wax dëgg yàlla war nañoo mën a yërëm nit ñi war nañoo mën a yërëm umma bi bàyyi tengal bi. Euh, bàyyi tanaabus bil alqab bi c' est pas que yi kese ñooy jam buxaari c' est yi kese ñooy jam buxaari c' est yi kese wala mustashriquuna yi kese ñooy jam buxaari téere imaamul buxaari bi téere la bu benn borom xam-xam bind mu am lu wér am lu wérut li wér fa bihaa wa neema jiitu nañ ko ci li wérut fa bihaa wa neema créé wu ko daf ko fee fekk wérut wérut loolu laalul dara ci makaana Buxaari comme ni nga xamee ne li li wéru ci Muwatta laalul dara ci makaana Imam Malik comme ni nga xamee ne li wérul ci musnad laalul dara ci makaana Imam Ahmad comme ni nga xamee ne li wérul ci musannaf laalul dara ci Ibn Abi Shayba wala ci bu Abdurazaq ainsi de suite ainsi de suite ñun discours bu mel nii lañ bëgg di dégg lii mooy daal suñu xel daal waaye bu ñu bëggee tënk nit ñi ci benn prison à ciel ouvert prison psychologique que ne boo gëmul lii rek yow génn nga ci firqa sàngam te firqa boobu ñoom ci seen bopp ñun ñëpp ñu dëppoo ne ñoom sax dëppoowuñ ci benn benn wax dafay doy waar comme ñu ko boroom xam-xam bi junjee moom ci boppam maalikiya yi am nañu ciy gis ne moo tax moo gën a wér imaamu shafii loolu la doon gis imaamu shafii moom kenn kese umma la moom kenn kese mbooloo la imaamu Shafii mu wattax la daan wax ne moo gën a wér moo jiitu Buxaari Buxaari ñëw ginnaaw eh, loolu imaamu Shafii daal moom mu wattax la wax ne moo gën a wér point à la te moom imaamu Shafii am na téere boppam mais waxul ne sama téere bi moo gën a wér téere mu watta dafa gëm ne mu watta moo gën a wér téere kon naka ci bu gisoon Buxaari ñaareel bi itam ñoom Ibnu Abdul Bari ñoom yeneen maalikiye yi gis ne Euh, moo tax moo gën a wér xanaa ñooñu bokkuñ ci ahlu sunna kon ahlu sunna ci seen bopp ci biir firqa ahlu sunna ci boppam ijma amul ci kene buxaari moo gën a wér lépp amul am nañu gëm ne muslim moo gën a wér am ñu gëm leneen te pourtant ñooñu kenn saagawu kenn waxu leen ne ay raafida lañ kenn waxu leen ne weddi ngeen Cheikhu Tidiane weddi ngeen Omar Cheikh Omarou Fouti weddi ngeen Sidi Hadj Malick weddi ngeen Serigne Touba weddi ngeen Baye Niass weddi ngeen Kirmani weddi ngeen Naqshbandi kaamoon naaw. Uh, astafirullah alazim ala kulli haalin uh, imaamul Buxaari xaaral ma jox leen quelques exemples yoo xamante ne ci téeréem la jógee moom kenn nga gis mbëkkante bi ci am ci ay xadis ala foog. ala foog xadis yi yëpp mënuñoo bokk wér il faut am bu ci wér am yu ci wérut xaaral ma jox leen ko premier xadis bi dañ ko fekk ci numéro deux mille huit cent dix boo demee ci deux mille huit cent dix-neuf imaamul Buxaari lan la fay mu ngi wax ne wa qaala Lays xaddasani Jaafar ibn Rabia an Abdirahman ibn Hum qaala samitu Aba Hurayrata radiallahu anhu yaqul anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal qaala Souleymane ibnu Daoud alayhim assalaam laa tuufanna l-layla ala mi'ati imra'atin aw tis'in wa tis'ina kulluhunna ba xadis bi jeex mu ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne Souleymane ibnu Daoud wax na ne dinaa wër tey sama soxna yi téeméeru jigéen walla quatre vingt dix jigéen kenn ku nekk ci ñoom dina ma jural benn jàmbaar buy jihaad fi sabilillahi lii moo ci sama mahallu shahid xadis bi continuer euh, euh, waayam bi daal di ko ne waxal incha allah waxut ko après doom mu wër jigéen yi kenn jurut ci kenn ku dul benn jigéen kese moom moo ci ëmb indi doom jumatul sama mahallu shahid ci xadis bi mooy xadis numéro deux mille huit cent dix dafa wax ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne suleymaan ibnu daawud daf ne dina wër téeméeru jigéen walla quatre-vingt-dix-neuf jigéen léegi shakk bi benn ci ñaar soit mu nekk ne ci Suleymaan ibnu Daawud la wala mu nekk ne ci yonent bi la wala mu nekk ne kenn ci raawi yi la wala mu nekk ne ci Buxaari yi la ci boppam bu fekkee kenn ci raawi yi la maanaam ci ñu nekk ci rijaalu sanad bi moo xam mooy Abu Hurayrata ba ci euh, raawil asfal bi kon dabt bi ñuy wax ak fiqa bi ñuy wax manqué na ndax dabtu mooy nga nettali la nga dégg na ko déggee bu dee noir la nga ne noir la bu dee blanc la nga ne blanc la mais noir la u blanc la maa ngi sikk maa ngi nangam bokkul ci dapt bu fekkee ci yonent bi la foofu la gën a garaawe wal iyaazu billah mooy ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne lépp lu muy wax ci wax yu la jugee yàlla mi ko nettali kon takkut ñaata la Souleymane ibnu Daoud wax cent la wax wala quatre vingt dix la wax ban la ci loolu problème lay doon ala kulli haal lii benn riwaaya bi la xaaral ma dugalal leen ko ngeen xool. Euh, bi mooy premier riwaaya bi nee na cent wala quatre-vingt-dix-neuf sikk am na saxiixul Buxaari hadis numéro deux mille huit cent nañ demaat ba léegi ci saxiixul Buxaari ci hadis numéro trois mille quatre cent vingt-quatre trente-quatre vingt-quatre imaamul Buxaari mu ne xaddasana Xaalid ibnu Maxladin حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على سبعين امرأة riwaaye bi mbëkkante na ak riwaaye bi jiitu mbëkkante boo xam ne ba ilaa yawmi diin kenn mënu leen a dajale te yépp ci benn raaw yi muy Abu Hurayrata lépp ci benn kuñ askan wax di muy yonentu bi sallallahu alayhi wa lépp ci benn xissa muy Souleymane ibnu Daoud fii nii ci numéro trois mille quatre cent vingt quatre dañ ne Souleymane ibnu Daoud dafa wax ne dinaa wër soixante dix jigéen ñoom ñëpp danañ ma jural ay mujahiduna yuy jihaad fi sabilillah riwaaye bi jiitu ci deux mille huit cent dix-neuf daf ne dinaa wër cent wala quatre-vingt-dix-neuf mbëkkante ba ilaa yawmi diin kenn mënu koo dajale moo xam ngay chii moo xam ngay rafidi moo xam ngay mutazili moo xam ngay tijaan bu askanu ci ñeseen moo xam ngay tijaan umarien moo xam ngay murid moo xam ngay qadir moo xam ngay layen moo xam ngay chazili moo xam ngay naqshbandi moo xam ngay daradisi moo xam ngay chinois moo xam ngay américain moo xam ngay trumpiste moo xam ngay démocrate moo xam ngay républicain moo xam ngay marxiste doo ko dajale ba ilaa yawmi diin cent jigéen déedéet quatre vingt dix neuf déedéet soixante dix ban la ci ban la ci bu dee yonentu bi moom mooy wax wax yii tanaqut wa iyaazu billah yonentu bi du wax lii te xissa bi benn la benn xissa bi la bu dee abu hurayrata la mbëkkante am na bu dee kenn ci raaw yi la dapt bi ñuy wax manqué na ayna al asaxiya xaaral ma dugal leen ko ngeen xool des na yeneen Euh, boobu mooy ñaareelu riwaaya bi ci saxiixul Buxaari ba léegi gis ngeen mbëkkante bi ci am ñetteelu riwaaya bi ba léegi ci saxiixul Buxaari mu ngi nekk ci numéro cinq mille deux cent quarante deux dañuy benn bennal pour ku bëgg a topp cinquante deux quarante deux saxiixul Buxaari imaamul Buxaari mu ne xaddasani Mahmoud xaddasana Abdurazaq axbarana Maamar an ibni Taawus an abihi Taawus ibnu Kiisaan an abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala an abi hurayrata qaal qaala suleymaan ibnu daawud fii daf ko askan ci abu hurayrata walam yarfaw ila nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala suleymaan ibnu daawud alayhim assalaam la atuufanna laylata bi miati imraa suleymaan ibnu daawud nee na dinaa wër tey cent jigéen riwaaye bi wute na ak riwaaye yi ko jiitu woon ci ñaari yëf bu dee riwaaye bi njëkk la bi nekk ci deux mille huit cent dix-neuf dafa am sikk sàkka cent la wax wala quatre-vingt-dix-neuf la wax kon soxla nañ ñi am dapt ñi wax ñu lan la ci yonent bi wax lan la ci Souleymane ibnu Daawuda wax lan la ci Abu Hurayrata wax bu dee riwaaye bi la cent kese la wax bi jëzm dafa jëzm ne cent la kon amul tardit amul taraddut amul sikk sàkk comme bi am ci bu njëkk ba cent wala quatre-vingt-dix-neuf bu dee riwaaye bi bi ci topp la muy deuxième bi nekk ci trois mille quatre cent vingt quatre moom waxul cent waxul quatre vingt dix neuf waxul soixante dix la wax te ñëpp xam nañ ne soixante dix ak cent ak quatre vingt dix neuf c'est diamétralement opposé benn bokku ci ak sa morom dinaa leen ko dugalal ngeen gis nañ dem ci quatrième riwaaya bi quatrième riwaaya bi ba léegi ci saxiixul Buxaari mu ngi nekk ci xadis numéro six mille six cent trente neuf six mille six cent trente neuf soixante six trente neuf حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة dinaa wër tey quatre-vingt-dix femmes adduna bi yëpp adduna bi yëpp amul ku mën a dajale lii quatre-vingt-dix la wax fii ci numéro six mille six cent trente-neuf ci numéro cinq mille deux cent vingt quatre cent la wax ci numéro trois mille quatre cent vingt quatre ci numéro deux mille huit cent dix neuf cent la wax wala quatre vingt dix neuf benn bokku ceeg sa morom li mooy asaxul kutub baadu kitaabillah cent quatre vingt dix neuf déedéet soixante dix déedéet quatre vingt dix quatre vingt dix du cent cent du soixante dix soixante dix du quatre vingt dix neuf lijjantil leen ñu ban la ci yonent bi wax ngir ñi mën a taxawal diina ji ñun soxlawuñu ay riwaaye yu bëri ndax riwaaye yu bëri yi nii yëpp sonal nit ñi la boo amee téeméeri mbir jarul ngay indi yëpp di jaxase xel yi tànnal bi ci wér nga indi ko bu dee cent bi moo wér sànnil bu quatre-vingt-dix-neuf bi ak bu soixante-dix bi ak bu quatre-vingt-dix bi bu dee quatre-vingt-dix bi moo wér sànnil bu cent bi ak bu quatre vingt dix neuf bi ak bu cent bu soixante dix bi bu dee soixante dix nga taxawal ñu benn bi waaye tanaaqudaat yoo xamante ne ba ilal abad kenn mënu koo dajale léegi tanaaqudaat yi yëpp boo ko dajalee génn ne xadis yi wérul wala am na mbëkkante ñu ne la weddi nga Baye Niass weddi nga Cheikhu Tidiane wa bi taali weddi nga Seydi Ahmad Sukayrij weddi nga Seydi Abdul Qadir Jilani weddi nga Cheikh Ahmadou Bamba weddi nga weddi nga weddi nga weddi Rafidi orientaliste Donald Trump tamoon naa ko bon lii nii dama ko joxe rek ala sabili misaal ndax euh, léegi laa yam ci kii bi ci lien bi léegi laa ko déglu donc waxu si fi sudur laa doon euh, laa doon wax rek euh, duwul lu ma préparé toog nii ne dama ciy wax kii déedéet bu doon loolu la dina gën a garaaw lii waxu si la maa fi sudur ma génneel la quatre xadis yoo xamante ne benn bokku ceeg moromam te yépp ci saxiixul Buxaari benn bi ci numéro six mille benn bi ci numéro cinq mille deux cent vingt quatre euh, benn bi ci numéro trois mille quatre cent vingt benn bi ci numéro deux mille huit cent dix lépp ci benn raaw yi muy Abu Hurayrata lépp ci kenn kuñ ko askan muy yonent bi lépp ci benn xista muy Suleymaan ibnu Daawud xista bi mbëkkante comme yàlla ak yàlla léegi yu mel ni man bu ma ko gisee par exemple wala ku mel ni man ñëw ne ah saxiixul Buxaari bi ñuy wax ne moo gën a wér ci téere yi kat problème am na ci parce que léeg nga gis ci ay tanaaku léeg-léeg nga gis ci ay nàngam benn kilifa ndeysaan bu ma bu am xorma bu am xam-xam mooy jugee fa la ñëw fiir ma jàpp sànni ci mbalit mi ne ma raafidi nga chiici nga weddi nga sëriñ bu ko defee wa rawraa iyun yi nga xamante ne nii xamuñ li géej gi déglil kama sami'tu naasa yaquluuna rek ñoom ñooy jugee fële ñoom tamit ah kooku kenn dootu ko déglooti kooku xéeféer la kooku nangam kooku nangam lu umma bi yëpp dëppoo bu dee umma bi yëpp ñoo dëppoo ci lu mel nii lii quand même lii wax dëgg yàlla lii gàcce la gàcce la parce que borom xam-xam yi ñi mokkal saxiixul Buxaari ñi koy tari comme Fatiha waroon nañoo dimbale wax ñu lii naka la ñuy def ak ñoom xadis yu mel nii nan la ñuy def ak moom yonent la ci wax. ñun soxlawuñu ay neuf mille hadis ak ay cinquante mille hadis ak dix mille hadis bu dee cent hadis lañ am sax doy nañu l' essentiel mooy na wér na nekk lu jugee ci yonentu bi te sikk sàkk du ci am te tanaqut du ci am mbëkkante du ci am Souleymane ibnu Daawud nañ ñu wax ñaata jigéen la wër ci xaddi ci xissa bi cent la wër wala quatre-vingt-dix la wala soixante-dix la wala quatre-vingt-dix-neuf la ban la ci te am na sax yeneen riwaay yu nekk ci yeneen téere yoo xam ne soixante la ñu wax am yeneen riwaay yu wax lu wuuteeg loolu <coughs> ala kulli li ñu war a gëm ba gëm ko mooy alquran kese kese kese mooy téere boo xam ne njuumte amu ci te du ci am waaye lu dul moom am na ay njuumte saxiixul buxaari comme ni ko xaafisul xumaari waxee am na sax ay ahadis mawdua yoo xamante ne yonent bi yëgul téenul man loolu dama koo gëm taxut ma weddi Cheikhu Tidiane taxul ma weddi bàyyi taxul ma weddi Serigne Touba taxul ma weddi Sidi Abdul Qadir Jilani taxul ma weddi imaamul imaamu Shaarani taxul ma weddi Abdul Abdul Wahabi Shaarani xaw ma lan ak lan ak taxul ma weddi kenn ci ñoom ndax kat am na lu may jël ci Buxaari am na lu ma ciy bàyyi am na loo xam ne ba ilaa yawmi diin dinaa ko jëfandikoo te mu ngi ci Buxaari am na loo xam ne ba duma ko jëfandikoo te mu ngi ci Buxaari comme ni nga xamee ne boroom xam-xam bi waxe na ko noonu am na ay maliki ne yoo xamante ne am na luñ jëfandikoo wut ci Buxaari te xadis bi mu ngi ci Buxaari bu fekkee lépp lu nekk ci Buxaari yonent bi wax na ko dañ ko war a jëfee kon kay maaliki yoone yi ñi ci ëpp nañ xabdu tuuti ñu topp riwaaye imam ah, ibnul qasim kon kay nañ jëfandikoo la ci bopp julleeg yooyu noonu léegi kon ñoom il se donne le droit am nañu droit wuuteeg Buxaari bi dalili min al adilla dalil sàngam tax nañu wuuteeg Buxaari ci liñ ci lim riwaaya ndax gis nañ lu ko gën a wér kon pour quoi pas keneen du am droit dalil sàngam tax mu weddi Buxaari ndax gis na lu ko gën a wér wala gis na lu gis na lu ëlëm xelam pourquoi moom bu defee loolu ñi bëgg a jël àdduna bi wàccee asamaan si ci kawam taxawal yowmal xiyaam te waxtu bi jotagut ci kawam lu tax bu fekkee imaam Malik imaamul Buxaari dafay gis xadiisu imaam Malik mu riwaaye lu wuuteeg moom imaamu Shafii imam Bukhari gis xadis bu imam Shafi'i riwaaye imam Bukhari riwaaye lu wuuteeg moom léegi maliki yu ne yi nga xamante ne mazhab malik la ñu topp am droit ñoom jël li imam malik riwaaye bàyyi li imamul Bukhari riwaaye ba pare bu ñu ñëwee li ñu bëgg sonal que ni imaamul Bukhari li mu wax moo gën a wér ci àdduna bi ginnaaw yàlla kon kay waruñu woon topp wax imaam wax dëgg yàlla bu dee imaamul Bukhari lu mu wax moom lañ war a jiital ci waxu keneen ku dul moom ginnaaw waxu yàlla kon bu imaam Malik waxee imaam Buxaari wax ni mu wutee day su war a sànni waxu imaam Malik topp waxu imaam Buxaari xaw ma ndax bo li may wax mu ngi leer parce que xëy na rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ala kulli xaal ci gàttal téere Buxaari bi am na ay sos yuñ ci sosal yonentu yoo xam ne yonentu bi yëgul téenul man nag walilahi alhamdu Buxaari dama koo jàng minal bidaayati ilal nihaaya dama ci am ay ijaazaat ci Mawlana Chérif Ibrahim Salih Al Husseini amul ku may wax ci Bukhari lu ma xamut te gëm naa ne am na ay ahadis mawdua ci saxiihul Bukhari am na ay ahadis daifa ci saxiihul Bukhari waaye nag waaye nag noonu laa gëmee ne am na ay ahadis saxiixa ci saxiihul Bukhari ahadis mawdua yooyu waxuma ne Bukhari moo ko fent parce que bu dee loolu la wal iyaazu billahi fal yatabawa maqaadahu min annaar dafay dal ci kawam waaye nag bi dalilin min al adilla xadis yi dugg nañ ci téere bi xadis yi dugg nañ ci téere bi yàlla takafulul garanti Buxaari ba njuumte du ci dugg yonentu bi takafulul garanti Buxaari ba njuumte du ci dugg bal yonentu bi takafulul garanti benn téere yàlla takafulul garanti benn téere bu dul alquran inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun waaye nag xeli jullit bi tey surtout jullit bi nga xamante ne dañ koy endoctriner ci ay xutab ak ay waaraateeg ay suqiina zulla awiyatan suqiina jahla adiyatan malal na saq yow saq dafa dem ba li lisaanu xaalam di wax mooy alquran mooy asaxu kitaab baadal buxaari maanaam comme li ñuy wax ne Buxaari huwa asaxul kutub baad al quran déedéet loolu lisaanu maqaal la waaye lisaanu xaal bi li ñuy wax mooy alquran huwa asaxul kitaab baad al Buxaari parce que Buxaari la ñuy jiital ndax da ngay gis Buxaari riwaaya xadis boo xamante ne comme yàlla ak yaale ak aaya alquran ñi bàyyi fa aaya alquran bi topp Buxaari kon kay ndekete Buxaari la ñuy jiital ci alquran loolu nag njuumte la bu ñu yàlla mayeetal ak fekke ak wér ak fan incha allah danañ ci continuer di leeral nit ñi ba ñu xam ne amul benn téere bu ñu war a taqdis bu dul alxuraan ba ñu xam ne amul benn boroom xam-xamu xadis bu ñu war a taqdis képp ku nekk boroom xam-xam la lahu ma lahu wa alayhi ma alayhi ñu génnee lislaam ci problème yi mu nekk ndax jiil yi ñi toll tey ñu ngi dund ay problème yoo xamante ne xadis yi ñu ñu riwaayaal gëmloo ñu ko par force endoctriné ñu ci moom moo ñu ko yóbbee te yàlla farataaluñu ko yàlla yonent bi farataaluñu ko nañ gëm ne lu wér am na lu wérul am na dinañ ci yaatal incha allah waxtaan ceeg nit ñi bañ xam ne saxiixul buxaari téere la bu ñu war a jël comme ni ñuy jëlee bépp téere lu ci wér ñi jël ko jëfandikoo ko lu ci wérul ñu sànni ko ci mbalit mi alxuraan kese mooy téere boo xamante ne da A à Z dañ ko war a jël dañ ko war a jëfandikoo dañ ko war a gëm bu dul loolu leneen loo gëmut lu alxuraan ci ay téere xadis wala téere sàngam mu ñu riwaaya laa yadruka fii shay amul dara lum lay lore parce que yàlla waxu ko yonent bi waxu ko in uridu illa lislaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah maa ngi jéggaluwaat beneen yoon ci eh, wax ji bu fekkee ne dënn bi wala wax ji wala nangam xaw na ñàkk teggin wala eh, tollu ma ci we boroom xam-xam bi wax tollu ma ci setu we boroom xam-xam yi wax ci Buxaari wala nàngam waaye dafa am loo xamante ne basique xel la te ñu gëm ne ñun kam tarakal awwalu ay lil axiri bul ma wax ne lu bàyyi Niass defut wala lu Serigne Touba defut man mënuma koo def bul ma wax loolu Serigne Touba ci boppam dafay wax ci benn woyam que ne bul tënk mayab yàlla ci ña jiitu woon boo boobaa kon nga nekk jaahil wala nga nekk réer xaw ma nan la ko bayti bi waxatee waaye daal maanaam wax ji loolu la kon euh, انظر لذات القول لا للقائل فالحق مقبول ولو من جاهل كم ترك الأول أي للآخر تمن موفي ولا يطاع عالم في باطل فالحق مقبول ولو من جاهل ña jiit woon yàlla mën na leen a nëbb dara li dalili min al adilla man ma ñëw mu wan ma ko ña jiit woon yàlla mën na leen a wan dara man ma ñëw mu nëbb ma ko waaye nag xadiis yu mel nii moom weddi ko wala wax ci wala naqdu ko du tax nga nekk chii du tax nga nekk rafidi du tax nga nekk mu'tazili du tax nga nekk zindiq du tax nga nekk jaahil bu la neexee bul sax fer ijji bu la neexee bul xam sax alif ba waaye nag dafa am loo xamante ne common sense li gars yi di wax common sense moom moo koy lijjanti soixante dix quatre vingt dix quatre vingt dix cent cent un xaw ma lan soixante faaw ñu lijjanti ñu ko common sense maa ngi jégalu ci ujjooyu guddi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa